Jitel parti pastef Ousmane Sonko nek tay premier ministre ay waxam kuko yak da danga ko defar lola animateur bi di maire Pire ndoy ban xamna ci dara kérok ba mu sékké jotay ak Ousmane Sonko inspecteur won des impôts et domaines am ay cadeau yu mu doon yëkëti di jangat jaar-jaaram waye tam taxawayam ci walu politique koka dal di koy jubanti ci anam go xamné won nako ni li ngay wax réeral askan wi dong nga ci jublu waye waaye du sotti ndax Ousmane Sonko dellusiwaat na ci jaajaram ci wàllu politique engagement wam waaye li mu xam lépp ci réew mi te mënoon koo jëfandikoo ci wàllu politique ngir daaneel ay nit may boppam tur wala gën a may boppam tur te defu ko ndax nee na la mu liggéey ci impôt domaine ña mu audité seeni entreprise mbuxum ak njuuj njaaj yi ci am yépp dara ump ko ci waaye kenn mësu koo dégg te itam kenn du ko mës a dégg mu teg loola ci taabal ji mu dellusiwaat kon ci taxawaay taxawaayu feeñal lépp lu mu jàpp ne askan wi dañ ko war a xam la ko waral oustaz Mor Thiam it keroog ca jotaay ba am na ca ay jubbanti yu usman Sonko yëkkati jëme ca kawam waaye ka ca ëppale woon mooy Ndoye Bane mi nga xam ne mujj gi sax dafa noppi daanaka xamatu lu muy teg ci kàddu yi Ousmane Sonko yooya loolu lañu leen di dëgtal mu doonoon jotaay bu ama am solo ndax leeral yi fa jógee balay booba ñu ngi leen di ñaan ngeen aimé vidéo bi partagé ko ngir may ñeneen ñu mun ci jot bu leen fàtte itam abonné ci seen chaîne FTN Média te bës cloche bi ngir dara dootu leen rëcc est-ce que du dafa mer ngembu mer ngembu gi mo genre frustré voilà ni mu mel ni muy waxee ni dafa euh, melni dafa mer ngembu liko waral moy xam nga bitto dafa commencer ci fin bi mhm. mais man ma arrêté commencement bi lu waral Ousmane Sonko gi mhm. Ousmane Sonko gi ba ñepp diko ciow lu ko waral mhm. nekkon ci benn bërëb di fa liggéey am yu fa xew mu koy génne ci place publique Mm-hmm. loolu mo mo mo defar Ousmane Sonko looloo tax nit ñi xam Ousmane Sonko ke mm-hmm. ban moment la ko def bi président Macky Sall jël yu nguur gi ba doxal doxal ay quelques euh, quelques at ki la commencé doxal lool mm-hmm. pourtant limu génné dan na am fa mu dan liggéey ci nguur gu njëkk ga lu tax mu xaar ba ci nguur gi muy doog génné mu doog def ay sorti fracassante mu def ko bañu ñu ko mu daal di dugg ci politique bi ma japp ni est-ce que du looloo tax mu mer ngemb té en général ñi mer ngemb suñu démé dañ leen di daan est-ce que du lii lii nga nekk nii ak euh, bon explication yi ngay joxe nii man ci sama gis-gis mer ngebu la est-ce la. ma sof ci beneen question. mooy comme comme moom dafa jël politique gu di di di di révéler. Mhm. di di génne ay mbóot. Mhm. te sénégalais bëggul ku weer moroomam. Mhm. est-ce que loolu du ci xalaat mu mu dugg ci langue gi mu pertuloo ko leneen li nga xamante ni moom la doon mooy mer ngebu gi bay Bane di wax léegi nii ndax du loolu. bon je crois que monsieur daf ma xamul wala siiwuru ma. <laughs> Uh-huh. parce que déjà chronologie bi ni mu ko tegee demewul noonu. ñun suñu parti ñu ngi ko créé janvier 2014. ak ministre Amadou Ba. déedéet sama juumul. amuñu benn rapport. musul ba musul ba bokk bokk leen woon Pastef gi. musul ko si àdduna. nii d'accord tey bu njaayee waayam. dégg dégg lu mu wax la. jàppee tey bu yem njaay ba pare ca la commencé yëngal. d'accord d'accord wax. Je vais ma répondre parce que genre raccourci ah, ah. c'est-à-dire genre genre raccourci M. monsieur Bane yi def. Mhm. c'est volontairement orienté pour andi ay jiixi jaaxa yu donc da nga may bàyyi ma tontu d'abord ñun n'y ngi ñun créé suñu parti janvier 2014. Mhm. j'ai été radié en juillet 2016. donc chronologie bi soo ko dëppee rek. Mhm. mu mel ni damaa jóge administration doog a dugg ci parti. Mhm. déjà première erreur mu ngi noonu. Mhm. deuxièmement suñu combat ñun maa ngi dugg administration maa ngi commencé liggéey 2001 2002 exactement. 2005 ma créé syndicat aux impôts parce que il faut nga retracer sama historique. ñetti at laa def jël sama responsabilité. boobu kenn mësul xalaat ni ministère des finances nit dina fi taxawal syndicat ma taxawal ko ci condition yu xawoon a métti parce que nguur gi fi ne woon di Abdoulaye dafa newoon foo xam ne l'essentiel de son budget fa lay du ñu bàyyi syndicat am fi menacé nañ ñu proposé nañ ñu lu ne ñu dëgër taxawal suñu syndicat syndicat boobu bataay yi mu fi mëne te mu koy mëne ba tey Sénégal yëpp gis nañ parce que soo duggee Google nga tàpp Ousmane Sonko li xew tey ArcelorMittal 2007 laa bind sama cronique ne nguuru Abdoulaye Wade voté nañu la loi 2007 25 boo xam ne dañ ko def sur mesure pour ArcelorMittal te lii li muy yàq ci réew mi kenn xamul nu mu toll. dëggu ci assise nationale yi en tant que secrétaire général du syndicat des impôts signé naa bi. kon soo foog soo toogee ba tey nga ne dama toog ba 2016. Mhm. mer ngemb. Mhm. defe naa da ngaa xamul lan mooy sama trajectoire. Mhm. muy muy ñaar. ñetteel bi dama ne man lépp lu ma gis ni lii baaxul ci réew walla day yàq dama ciy wax. 2012 duggaguma woon ci politique Sud FM invité ma débat boo xam ne maa ngi partagé woon plateau bi ak Moubarak Lo enregistrement baa ngi fi. j'étais simple syndicaliste maa njëkk a wax ni CREI CREI luy yàq réew la on n'a pas besoin d'une juridiction comme ça ñi ngi wax su tien de xawma kan kan à Ousmane Sonko man kenn génnul ngir man kenn conférence de presse ngir kenn xeexul ngir man c'est normal su injustice amee nit ñi manifester ko. Sénégalais moom bëggul injustice. sur la CREI sur le dossier de Karim Wade. def naa fi conférence de presse veille verdict bi ne ak lu mënti am la procédure est viciée j'assume mes responsabilités xaw ma Karim Wade mosuñoo gisee amuñu rapport te je ne suis pas pour l'impunité ku fi mus a gérer suñu xaalisu réew da nga rendre compte mais utiliser des méthodes yoo xam c'est inquisitoire jàpp nit ne ko kaay denc la ba nopi doga jël ay nit ñu dem defi ay commission rogatoire pour xol fo jëlé kër wala fo jëlé dal mhm. kooku du justice donc gis nga nit do changer couleur selon les circonstances mhm. wala li ngay défendre Do ko défendre parce que diw la mhm. su des keneen la nga changer position donc yow ya xamul sama trajectoire mais ñi ma xam depuis mon ma duggee impôt ba légui dinañ la wax naka la toogee biir impôt ba naka laa fa génnee te ci bañ la musa doon ak ci dénoncer lu dul yoon ma fonctionnaire de l'état est-ce que fonctionnaire war na euh, war na est-ce que doit de réserve dafa am est-ce que fonctionnaire bu qui ci di est-ce que lu xew ci bërëb rek da ko sur la place publique question bi nga posé a ngi ci. Hmm. ma tontuwaale oustaz. mooy. après euh, mooy benn droit de la fonction publique dafa évoluer. Hmm. gis nga droit colonial bi ñu joxoon daal di jël ay. yi ñu jël pour teunk fonctionnaire ba dootul bokk ci société bi dugal ko ci obligation de réserve dugal ko ci euh, discrétion professionnelle secret professionnel te ñoon ñoo yëpp bokkul sax il faut que notion bu nekk ñu xam lu muy tekki parce que obligation de réserve xam nga lu mu tekki mooy fonctionnaire bi am na sañ-sañu wax opinion waaye waru cee waru koo waxee nenn ni ba war a mun a attaquer wala mu mun a euh, dénigrer l'administration, mm. loolu bokkul ak la discrétion professionnelle soo c'était ak décret bi Macky Sall signé mm. defu ci obligation de réserve discrétion professionnelle intellectuelle de bind muy leneen mm-hmm. lu bokkul ak mm-hmm. donc <laughs> su ñu ñëwee dugg droit de la fonction publique mm-hmm. léegi àdduna xam nga fu mu toll les léegi dañuy neexal fonctionnaire yi pour suñu gisee lu dul yoon. Ah ñu dénoncé ko. Sénégal 2012 assemblée nationale bi muy doog a toog di eh, transposé na benn benn benn directive UEMOA pour dans la lutte contre la corruption et pour la transparence mm-hmm. xam nga lu ci wax fonctionnaire bu fekkee ñuy def lu dul noonu. boo ci noppee ba ëllëg ñu gis ko dañ lay considérer yow comme complice. te ñoom ñoo ko ñoo voté. xam na li même def mais ñun sax ma terminer par fofu dañoo dañoo dañoo violé wul discrétion professionnelle tax du défier naa leen ne leen. du ñu mus a ne Ousmane Sonko position bi mu toogee. la xamee lii wala mais impôt assemblée nationale nañ ci wax. mais impôt assemblée nationale ñoom ñoo defar seen rapport. dugal ko ci situ ministère de l'économie et des finances ne institution yi Amel, euh, euh, trésor xaalis bu dul jeex ñi ngi nii. wax ban type d'impôt la muy document boo xam ne ku xam finance dugg ci si mën nga koo gis ma exploité rapport boobu loolu amul rapport ak man fi ma nekkoon xam nga fu ma doon liggéey j'étais auditeur interne moi je n'avais aucun rapport ak loola te du ñu mus a génne ci sama carrière te yàlla xam ne ni xam na ndax def naa quinze ans impôt vérifier n'a fi ku nekk fiscalement. mais kenn du ma a gis dossier boo xam ne mu ma koo jox ma dem vérifier ko ñëw ne dossier mbaan bi gis naa ci lii. léegi nag mu dernier aspect bu bi bi bi loolu tam Sénégalais il faut ñu xam li ñu bëgg. Mhm. un fonctionnaire da nga prêter serment de servir l'État donc le peuple sénégalais. Mhm. tu ne sers pas un homme. Mhm. Sénégalais yi su ñuy wax d'habitude dañuy généraliser. dañ naan. waa impôt et domaine mhm. wala waa douane wala lii wala lii ñoom mhm. ñëpp a yem mhm. parce que seen ceeb tooy na moo tax duñu wax léegi soo waxee ñu ne waruloon wax mais li ñu war a xool mooy lii est-ce defar réew la wala lu ko yàq mais nañu bàyyi parce que dinañu dem ba découragé ba kenn ku gis su toll ni àdduna sax da nga naan sama yoon newu ci te réew su tollee foofu nag ñoo ngi ci buutal du baax effectivement may mën a après waaw mais monsieur Sonko depuis sànq yow yaa